mbokk yi boroom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy seydinaa Ousmane Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di boroom baatin boroom xam-xam ak boroom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19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 askan wi eh, ku ca nekk rek kan nga xamante ne ah, noonu nga ko dal di amale eh, bu ñu xoolee nag ci artistes a ah, ñu ngay gis eh, kii di Youssou Ndour ak doomam di Nelson ca mosquée Massalikul naan a ki ci suba gi nag ñu daal di demoon rek a julli ji la nga xamante ne moom moo di korité ca retour ba nag teew nañu kom nañu amee habitude rek di ko defee korité en famille ñoom nag ñu daal di dajaloo rek famille Ndour yëpp Youssou Ndour ànd ca ak waajuram bu jigéen maman Soxna. ak a nga xamante ne ñoom ñoo di ay rakam ñu daal di féete korité gi rek en famille ñu koy gis nag kii di doomam Segui Ndour ak Birane ak sax ka nga xamante ne moom moo di Bouba Ndour ak photo ya nga xamante ne a di nañ koy partagé rek ñu koy gis nag kii di Moustapha Mbaye daal di teewoon rek ca kër maman Ndeye Soxna Mboup en présence de Youssou Ndour ak i rakam daal di leen rek taggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit korité beneen artiste bu dal di def rek li di korité bi en famille Wally Balago Seck lay wuyu dal di koy rek féete ak ña nga xamante ne moom moo di famille am gis nañ nag simplicité ba nga xamante ne faramareen ba dal dina koy wane rek ci biile jullib korité dal di def jàllabem mu dal di nekk rek lu simple loo xamante ne moom faramareen bi dal dina koy def rek ba noppi publier baalu ak ay fansam ak askanu Sénégal yëpp ci weeru koor gi nga xamante ne dal nañ cey génn Sène euh, Papa Diouf euh, le leader de la génération consciente moom la ñuy gis noon rek euh, mu daal di ànd ak ka nga xamante ne moom moo di doomam gis nañu nag ñoom ñaar ak seen mbubu yu rafet yi nga xamante ne daal nañ koy sol nduróole sax couleur bleu moom nag mu daal di a partage rek yi les photos Papa Diouf ànd ci ak doomam rek ba noppi dal di baalu ak rek askanu Sénégal Momo Dieng moom la gis noonu rek très bien habillé en grand moom Momo gis nañu tamit révélation yi nga xamante ne daal na koy def rek ci soxnaam waaye tamit ah, profito ci fête de Korité bi rek ah, baalu Sénégal yëpp ak waaye tamit ah, partager moment de bonheur yi nga xamante ne ñu ngi koy dund rek jamono ji mu nekk fête de Korité ba nga xamante ne moom mooy marqué njeexitalu weeru koor gi yéen a nupp artistes yi daal di fësal ay single loolu nag à l'occasion de la Korité mu mel ni nag mën nañ ci lim kii di Titi Baba Maal ak Aline Mbaye Nder ñoom nag ñu daal di rek génne ku ci ca nekk ab tube rek ah, mu nekk tube yu am solo lool loolu nag daal di koy rek ah, jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seenub fans rek à l'occasion de la Korité wax ci keneen Bougane Gueye Dany moom la ñu gis noonu rek njiital des médias ak photo ya nga xamante ne daal dina koy partager rek ak internautes yi mu daal di nekk rek ah, jullib Korité bi nga xamante ne daal na koy ama rek ni ki tey ci suba ànd ci sax ak ka nga xamante ne moom moo di doomam moom Bougane Gueye Dany keneen ku daal di partagé rek ay photo jëm ci korite gi Abou Diallo lay wuyoo mu nekk international sénégalais nekk ca diwaanu Allemagne ca Leipzig moom nag la ñuy gis noonu ak photo yi nga xamante ne daal na koy partagé mu mel ni ni ki tey tamit daal di célébré la nga xamante ne moom moo di feetu korite gi. wax ci wàllum politique njiitu réew mi ak entretien ba nga xamante ne am na ko ak El Hadj Assane Gueye waaye nag lu jiitu loolu gis nañu ca mosquée Masalikul Jinaan moom a njiitu réew mi nag daal di nay rek. nag addu ci la nga xamante ni sax moom moo di yenn ci ay réalisation waaye tamit ay ndimbal yoo xamante ni ko andi rek bokk na ci téeméeri milliards yi nga xamante ne pare na rek ngir daal di koy jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di agriculteurs yi waaye nag bu loolu weesoo entretien ba nga xamante ne mu nga ca àndoon rek ak kii di El Hadj Assane Gueye bu xa Futurs Médias waxtaan wa yaatu woon na loolu ñu mën cee jàpp sax yenn ci yoo xamante ni actualité daw fii Sénégal mu nekk ay question yu am am solo yoo xamante ne kii di El Hadj Assane Gueye daal dina ko koy posé rek jëm ci yëngu-yëngal yi ñu nemmeeku rek ci réew mi waaye nag njiitu réew maak dal ga nga xamante ne daal na koy wane rek ci yile réponse mu daal di nekk réponse yu leer nañ waaye nag la nga xamante ne moom la nit ña doon xaar rek jëm ci question troisième mandat moom nag ba léegi mu ngay def rek suspense ci li ni mel gannaaw ba nga xamante ni sax moom waxul waaw waxul déet waaye nag la mu mën a dénk askan rek mooy am na waxtaan ak ñoom rek euh, bu décision jotee daañu ko jëlandoo rek loolu nag nekkaat beneenub suspense boo xamante ni dénkaat na ko rek sénégalais euh, jëm ci question bu troisième mandat euh, ca beneen fànn ba mu mel ni kii di Idrissa Seck njiital parti réew mi waaye tamit nekk njiital conseil économique social et environnemental mu mel ni nag daal nay janook taskatu xabaar yi moom nag lu weesu loolu daal dinay sax annoncé woon candidaturam ni ki 2024 mu mel ni tey daal dinay dëggalaat li ni mel waaye tamit daal di sax lâché ab bomb noonu lañ ko mën a duppee rek muy départ ca euh, conseil économique sociale et environnemental ba noppi départ tamit ca benn Bokk Yaakaar ak sax a ñenn ñoo xamante ne ay jëwriñ leen yu nekk ci gouvernement bi te bokk sax ci parti réew mi loolu nag mu nekk loo xamante ni sax moom daal ni rek andi ay décision ci li ni mel mu mel ni départ am wala sax démission am ci gouvernement ba mu ngay xeeñ rek gannaaw ba nga xamante ne daal nay dëggal tey gannaaw taskatu xabaar ya kii di leader bu Pastef dal nay amal jullib koriteem ca diwaanu Sigicoor mu mel ni nag ba mu noppee rek dal nay def ab déclaration bu am am solo wax rek ci yenn yoo xamante ni ñu nga koy nemmeeku rek ci réew mi muy nañu xamante ne noonu la ñuy daal di traité rek ñi fare ci kujje politique yi rawatina moom ma nga xamante ne jàpp nañ ne sax moom moo nekk ca bopp ba mu jàpp ne sax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a wax rek nañu génn wax ndax réew mi ñëpp ñoo ko daal di bokk bokk na tamit ci daal di fësal rek jàmm ja nga xamante ne ñu nga koy woote fii ci Sénégal mu yox sax xanaan ñi nga xamante ne ñoo fare ca pouvoir ba ñoom ñoo ci war a jiitu rek te bañ a métital ñi xamante ne ñoom ñoo daal di nekk ci ku kujjëk politique gi wax ci Serigne Modou Kara mu mel ni andi na leeral rek ci génn Macky Sall ak kii di Idrissa Seck ñoom ñaar nag ku ca nekk waxtaan wa nga xamante ne daal di nga koy seq ni ki tey moom nag Serigne Modou Kara daal na cay def rek ab jëmee ko ci ñaari sorties yooyu nga xamante ni nemmeeku nañ ko rek ni ki tey ci korite gi wax ci leneen Ngaaka Blindé moom nag gannaaw mu nekkoon invité. bu Fou Malade wax na lu bëri waaye tamit la nga xamante ne jot na ko dund rek ca prison ba mu nekkoon muy wax sax xaritam ya nga xamante ne daanaka jàpp na ne dañ ko dal di trahir rek ndax dañ daan rek mbubbu turam rek moom ba mu nekkee ca prison ba di rek def naka sudul noonu di gis ñoo xamante ni sax dañ ko doon jàppale ak ñoo xamante ni daanaka dafa nekkoon ay ñoom mu mel ni ay xaritam ci boppam ñoom ñoo daal di rek def li ni mu jàpp ne sax ne moom ba mu nekkee ca prison ba ña nga xamante ne ñoom la yaakaaroon ne rek ay xaritam lañ ak kenn du ca xaritam gannaaw ba nga xamante ni rek ñu nga doon bubboo turam di ca def naka sudul noonu wax ka gannaaw nag ñu daal di cay teg loxo ñu bëri ñu mën ci lim rek taskatu xabaar bi nekk ca Walfadjri di Thioro Mandela a mel ni nag a ki tey moom moo doonoon anniversaire am rek waral nag ka nga xamante ne moom moo di borom këram di Mahou Mandela daal di rek génn def ab publication eh, souhaité ko joyeux anniversaire waaye tamit eh, defal ko eh, discours bu daw yaram lool ca na nga xamante ni rek noonu la di xeexee rek na nga xamante ne noonu la nekk une femme brave waral nag ba moom mu daal di koy rek remercier bu baax a baax ci lépp loo xamante ni rek daal dina koy def waaye nag guddi yu métti yi nga xamante ni daanaka anniversaire am ba mu nga ko daal di a fekk rek ca prison ba moom mu koy apporter rek soutien ba noppi rek di wax ne mu ngi ci wetam. itam rek di ko jàppale fépp fu mu mën a nekk mu doon message bu am am solo boo xamante ne kii di Maxu Mandela di borom kër ci Coro Mandela daal di koy rek jébbal bi message photo boobu ngeen di gis waa ji kan Kane lay wuyo mu nekk ab tiktoker ñu gën ko xam sax ci Zeus Far benn moom nag dal nañ koy ràññee bu baax a baax ci tiktok beeg vidéo yu am am solo yi nga xamante ne saa yu ko defee rek daanaka dina reetaanloo ñu bëri mu mel ni moom depuis un an kenn tegu ko gët dafa daal di rek réer moom Serigne Kane photo ba la ñuy gis noonu rek mat na benn at boo xamante ne daanaka kenn tegu ko gët kenn xamul fan la nekk ci loolu nag ñu daal daal di joxe rek numéro juróom bu jigéen di Astou Bari ngir rek ku ko gis nga daal di contacter 77 292 07 79 muy wuyoo ci Serigne Kane nekk ab tiktoker ñu gën ko xam ci Zeus Far benn mu mel ni nag photo yooyu ku ko gis rek di nga ko xàmmee bu baax a baax a nekkoon na ci tiktok bi benn at kenn tegu ko gët ku ko gis nag nga woote ci 77 292 07 79. wax ci uh, complicité bay daw uh, ci diggante Boucher ak kii di Zarko uh, ñu ngi gis nag kii di Zarko na muy malmené rek Boucher waaye nag lépp ñu koy def rek ci ambiance ak bonne humeur di wane rek ñaari mbër ya benn lañ waaye tamit complicité ak xaritoo ba nga xamante ne dal nañ koy nemmeeku rek ci ñaax ñi muy Boucher Ketchup ak kii di Zarko jeexale wàllub tàggat yaram mu mel ni nag niki tey FA Coupe demi-finale ba Sheffield United bu Iliman Ndiaye Ndiaye Manchester City da leen a dóor ñetti bal ci dara waaye nag ñu ngay gis supporter yu Sheffield United yi ak yére Sénégal yi nga xamante ne daal nañ koy sol di apporter soutien kii di Elimane Ndiaye habillé aux couleurs du drapeau national ñoom supporter yu Sheffield United yi loolu nag loon ñeeloon FA Cup ba nga xamante ne ni ki tey Sheffield United mu nga ca doon dajeek Manchester City mbokk yi doon ñu teewlu lii lañ leen andi doon ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf